ngi noonu les géants di Bawol saan trois morceaux bu bees ak li nga xamante ne bii mooy enveloppe walla lii wala lii Eumeu sen lañ koy jox décoration Eumeu Sène la ndeysaan décoration Eumeu Sène la Tapha ko koy jox Pam Ngom la koy jox wala lanjang la koy jox ndeysaan cey Bamba Fall macha allah mi ngi noonu waaw bu jeexee rek jeex na bu jeexee rek jeex na maa la ko wax mi ngi noonu après la pluie c'est le beau temps waaw bu jeexee rek jeex na ndeysaan ndeysaan oh oh ndeysaan Papa Ngom la ñuy solal la ñuy solal mbum bi sëtub Samba bi ndeysaan mooy mooy mooy magu am seen ndeysaan mbokk te alof Njaay nee na mbokk ndee koy jur ndeysaan cey loolu loolu cey loolu cey Elias Thioune agent Tapha Tine baa nga noona ma ngay joos ndeysaan ça c'est beau c'est magnifique ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw waaw enveloppe bu duuf ndeysaan en état de grossesse très avancé enveloppe bu na muut waaw waaw ma nga noona ndeysaan ndeysaan c'est le Sénégal qui gagne ndeysaan mbokk waaw waaw cay sargal ba. Bamba moo ko waaw lañ jagleel loolu wante. ndeysaan moom il n'a pas démérité. ndeysaan Bamba Fall wax. na jom def na fula def na fayda te loolu la ñu xamoon ci Eumeu Sène man nag day nekk sama mbër moo tax wax naa ko Tafa parce que ku mu mës a bëreel à part Gris Bordeaux bi moom. oma laa sa faral ndaxte mbër la moo xam ne nii lu mu la wax ci face à face dina ko def du daw du arrière te amul ay deuxième round ak troisième round keroog bi laa mujj commencé rek gis nga dugal sama waa ji mais sama waa ji war na pexe mu mu génnee ba rek na problème am kon am na vraiment la ko waroon def na ko nee ko nag nay sol vert clair bi moo gën vert foncé bi vert clair bi moo tax vert foncé ay monsieur le maire ma ngay classe ma ngay classe am ma seen ndeysaan mbokk yi lépp Sénégal la ndeysaan bi ngi doonu lépp ci réew mi la gamu daal tamit dañ koo teral kon am wax nañ ko ñun bëgg nañu ko wax nañu ko tamit fair play am neex nañu ndax léeg-léeg nga daan mbër mbër mi xataraay ñu kenn daanu ko mais wane na fulla wane na fayda wane na jom keroog nag bésu daanu moo ñëw mu daanu wante il n'a pas démérité Tapha nag dama lay bàyyi nga wax ak ëmma ñu jox la kàddu ci turu ndax yow muy roofanteel jël nga coup boo xam ne xam nga ni ama entraîné na waaw boo salaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku teew ci mbooloo mi di nuyu waa Refane di waa Medina di leen wax ne fii suñu gox la biñ jógee ba toll fii lañ ñëw di dalal mu nuyu monsieur le maire yàlla di nuyu aussi suma ñaari maire yi muy monsieur Ahmed Dieye ak monsieur Djibi caw ak Mbaye Dion nga xam ne tey kenn ku ne am na ku la fi teewal tey waaw tey nag waaw sama xol dafa sedd tey bu ñu amee suñu monsieur le maire muy Bamba Fall tey ñëw di ñu décorer tey ma ànd ak estafu Bawol mbooloo yëpp ñëw teew suma papa tey mu ngi fii El Hadj xam nga papa Thioune ñu ngi ànd ak mbay Ndewaan ak estaf bi yëpp ñoom Socé Mané Cheikh Mbacké waaw Daouda Diagne mu ngi nii Assane Ndiaye xam nga waaw ñoom Bada Dione ñëpp ñu ngi fi quoi waaw bu ma limee rek day compliqué. waaw bu loolu weesoo du remercier aussi suñu grand yi taxaw nii muy grand Landiang nga xam ne ñoo boo ko dëkk Bawol ak grand Pape Ngom waaw ak staff Amar Sène yëpp nga xam ne tey ñu ngi teew fii di encourager Amar Sène bu baax nag di ko ñaanal jàmm ak salaam moom góor yàlla la champion la ku baax la wax dëgg yàlla waa ñu ngi koy ñaanal li ci kanamam yàlla na leer quoi vraiment man tafaatin maa ngi koy ñaana lool. tey lii ñu ko décoré man tey bu ma sañoon maa ko yóbbu ba keram dem jox ko yàlla xam na ko voilà. waaw mu nekk mbër yoo xam ne idole lañu ci làmb ji bon na mbër yëpp roy ci ñoom daal wax dëgg yàlla di leen wax ne kontaan naa tey vraiment. tey comme xam nga tey ñu ma nar di décoré nii xam nga. di wax na bégg naa loolu daal wax dëgg yàlla di remercier aussi monsieur le maire Bamba Fall xam nga di wax na ñun ñëpp bon ñu ngi nii ci ginnaawam quoi voilà. ah vas-y damay xaar ñu kii bi laay bañ ñu. ñëwal grand. waaw loolu rafet na tàccu leen. lii mooy fair play lii la soxla ci làmb ji ku nekk ci ñoom remplir nga sa contrat waaye nag kii di bëgg a jël kàddu gi day kenn ci ah ah sama gars yi lañan mi ngi noonu monsieur le maire décoré na ëma décoré na adversaire am pour wane ni rek ñoom ñooy mayante xaalis contrat lañu ñu seqoon boobu remplir nañu ko ci jom ci fulla ak ci fayda amul kenn ku leen jéppi sànq bi ma ne Eumeu Sène mi ngi ñëw bi ko Lamine Samba waxee supporteru Tapha Tine yépp dañu ni bëreet jóg pour dem gàttandu ko Eumeu bu dee bëree keneen ku dul Tapha bawol bawol yi moom lañu faral c'est nag dafa fekk ni àll bu nekk la fay ñuul moo fa di ñàkk te bawol yi tamit ni ëmma ñafe woon ba dugal roi des arènes bi Pikine dañoo bëgg Tapha mi ñafe ko ba dugal roi des arènes bi bawol te il a les qualités pour ça macha allah monsieur le maire ça fait huit ans que Tapha a gardé son huit ans macha allah yu nga xam ne tër na ci juróom-benni mbër juróom-benni ponk nga xam ne kenn ku ci nekk jàmbaar nga ndax bu ñu la nee dafa daan sos daan Guy gi daan Yekini Junior daan Boy Niang numéro 2 daan Bombardier bërki démb mu daan Eumeu Sène il s'est tracé une voie vers la couronne prochaine étape bawol bawol yi nee nañu bëgguñu kenn nee nañu daal couronne bi donc la ñuy wut nag liy wane ni mën nga koo nekk mooy ki nga da koo nekkoon parce que ki nga daan ku ko daan koo munta daan ci làmb ji am keroog lim la yan ba ngay bëre ba léegi góor yàlla musulaa teg lim la teg wóor na yàlla Tapha mii keroog maa ngi ñëw di ko interroger waaye bakkan bi la doon defaraat parce que ëmma ñam na ci ñam yu baax mais Tapha bu entraîné wul woon amul woon dëgg-dëgg ngóora ak njàmbaar keroog day jébbalu nee naa fukki mbër yoo rangale li ëmma seen yan Tapha keneen kum ko ci yan nga jébbalu mais Tapha dafa xam ne il faut souffrir pour sourire dans la te souffrance boobu moo ko tracé tey cette voie royale gars yi nag ñu ngi wër-wëral naan na jël kii ak na jël kaa roi des arènes la bawal bëgg loolu lañ ma yóbbante ci benn bi mbooloo mi yoon bàyyi